dal leen ak jàmm CAN u bay xew ci Égypte final ba tey lay doon nar a dox ci diggante équipe nationale bu Sénégal ak équipe bu Gambie Les Échos yéen kaay ne tëggum ndëndëkum semmiñ lay doon neex benn naqari benn ndax ñaari équipe yi ñoo gën a xarañ ci tournoi bi dàq caa football ëppale cay but Malick Daaf muy tàggat gaynde Sénégal yi ne amul c'est-à-dire final moom gagné rek lañ ca soxla record yéen kaay ne buñ ca gagné rek dégg daal yi ba noppeetu dugg ci taarix stade yéen kaay naan leen yéen ci des nawoon fawoon l'observateur gannaaw CAN bi ak CHAN bi gaynde yi bu ñu amee ndam dégg daal yi dañuy xuuf paa pourquoi président Tunisie Kais Sayed waxtaan ci téléphone ak président Sénégal di Macky Sall l'observateur loole la xëy di càmbar journal Futur Média bi ne bokk na ca la ko waral moo di ay enjeu diplomatique di lëkkaloo gu dox ci diggante ñaari réew yi kàdduy boddante ci wàllu xeet bi président Tunisie di Kais Sayed yëkkati woon lim ca xamle moo di ne la mu wax ak nañ ko déggee bokkul Hadjibou Soumaré laa ci yamu sampoon ak nañ ko déggee bokk naam bokkul yoon def na ko ba mu nekk ci ab dëgg moo di mbirum Cheikh Hadjibou Soumaré nekkoon fi premier ministre ci ay jamono mënoon naa bañ a yegg si fii tribune yéen kaay lu ci mën di am daal gars def nañ ko ba mu nekk ca contrôle judiciaire te bi mu génnee démb li mu xamle moo di ne fi mu toll yoon da koo tënk ngir mu wax ci bileb dossier moo tax mu dox ndànk dellu këram yoon di ko fa may bët ndax yoonu jàmm soriwul lu dul jàmm-jàmm ko gën jàmm jañu sàkku ca Casamance su su nee na am na lu ca bees weeru juin atum 2022 ci lan xaatimoon acte bu njëkk ba ca Kabrousse journal bi ne démb itam la ñu tënk acte 2 waxtaanu ñaari fan fan ci diggante délégation bu nguurug Sénégal ak faction rebelle bu jàkkaay ci leen déggoo ngir wéer ngànnaay xaatim boo xam ne ab ONG lañu tànn ngir mu nar koo toppandi waaye journal bi nee na ba fii gars yi farek Salif moom lànk la ñu def li ñu defoon ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards ci xaalis CFA moom la enquête yéen kaay xëy di wax ministre des finances leeral na ko Mansour Faye mën cey tudd ne projet bu ñeenti téeméer ak juróom ne ñeen fukk ak juróom benn yi nekk ci réew mi laaleen ñeelal sa bopp sursu aané Moustapha Mbeng ma fa nekkoon maire tudd nañ ko ca ba muy leeral libération yéen kaay ne tey laa leen di wax na mbir ma demee maire bi fa nekk di Adama Sarr moo porté plainte gannaaw ba mu seetloo ne ban ko fa tegeeg léegi ayu bés bu jot ñu andil ko këyiti parcelle yoo xam ne dara jaaru ca yoon ci la porté plainte brigade de recherche soobu ci enquête daaneel Cheikh Tidiane Cissé nekk fa coordonnateur Pastef moom it mu nangu daal di daaneel Abdoulaye Diaray Sow nekk ku jege lool maire ba fa nekkoon di Moustapha Mbeng te fi mu toll mu dem fekki APR journal tur jip lan lay toppe moo di njubla nga leexoor dëbb li njaa ak boolay defi ñaawteef ca mairie bu Kër Masaar mairie bu Ndakaaru te Barthélemy Dias di ko jiite fa la journal Le Quotidien xëy yéenekaay bi ne ay volontaire yu fay liggéey ñoom mer ba futu ndax ne ñaari weer jàpp juróomi weer a ngi ni jotunu seeni payoor di lu doy li doy waar kay moo di liy xew ci làngu politique gi direct news ne bu doonu busol la ñu ne fi mu toll Ousmane Sonko moo koy orienté ndax na waa Benno Bokk Yaakaar ci dat yi jàppi dati boppam ne falaa budd dina ca mitin te it dinañ ca amali ci réew mi réew mi ñin fi dëkkee teg loxo manifestation yi ni gàntal ba ci ku fi nguur gi fi nekk ñu woolu la moom la Walf Quotidien jàpp ne moo tax ba ñu bari jéppi waa pale ba muy gaay yi pale bi di ñu fare ci ku jégi dañoo war a ànd ak seen xel Alioune moo ko wax ci Vox Populi mu yokk ca ne problème politique politique moo ko mën a lijjanti waxe ñetteelu mandat moom leer na Sénégal nag mu ne royukaay la ci àdduna bi te li ko ko may afrique soowu jant ba europe maître Ousmane Seye bay na fa waaram soogaa làqu le soleil national ne avocat bi dëddu ba faaw tax njiitu réew mi di président Macky Sall ne avocat bu mënoon dossier yu mag fii ak fële moo fi bàyyeekoo yàlla na ko yàlla yërëm góor gu fi bàyyeekoo sa jabar dina la tenj ñiy tenj ñi jot a tenj ak ni ñuy tenje gëstu bu yaatu la ci journal bés bi le jour ba noppi jox leen kàddu gi am ci koo xam ne li mu wax moo di ne tenj na ñaari yoon tax ba fu mu jaar ñu naan ko dangaa ay gaaf amit koo xam ki jaale rek ñibbi ndax dañ naan la simmi naa fi samay dàll CCPR chetttt mais yow sawaay yow fu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablet ba sa téléphone portable lu xew